conseil municipal bu Hann Bel-Air ci ak sen maire Babacar Meng Mbengue desuñu ginnaw ben yoon ci élan de solidarité nationale bi njiitu réew wote woote xex ak fagaru ci Covid 19. te ñu dippee ko jamarlo ak coronavirus jébbal nañu population bu Hann bel muy daar ak lieu de culte ak structure de santé ay produits désinfectants détergents ceeb ak diwlin ak lu nu mel lu toll ci ñaar fukki millions ak ñett ci suñu ay koppar. mooy le conseil municipal bi nga xam ne ñoom nañu ànd di liggéey di jouer un rôle extrêmement important parce que boobu ba léegi effectivement ñoom ñi ngi doon wax ne que ah wax dëgg yàlla ñun lépp loo xamante ne lu ñu laaj la ñu war ko def dañuy manifester li nga xam ne mooy suñu taxawaay gis ngeen leen donc ñoom ñëpp dañu ne lépp lu ñu war a def rek nañ ci def donc lii nga xam ne dans un premier temps li ñu mobiliser en moyens, valeur bu 23 millions de francs CFA la TTC mais dafay montant boo xamante ne mën naa ne lu ñuy mais eggaguñu fenn. tey boo gisee ñu wax daara yi ñëpp xam nañ daara yi nu ñuy dundee taalibe yi génnatuñu am na loo xamante ne bu doon suñu sago ñun ñoo di jël en charge mais nag comme comme bi demil noonu ñu am fii lu 35 daara fii ci commune bi donc bu ci nekk dana am action boo xamante ne danañ conseil municipal dana ko def. ñu jox leen muy loo xam dañ leen di dimbali ko doomu sénégalais yu bare am na loo xamante ne laal na leen te loolu nag mun naa ne jombul kenn moo tax dañuy manifester d'abord suñu solidarité en tout cas képp koo xamante ne doomu Sénégal nga doomu réew mi nga yëf yi dal la di ñaan yàlla en tout cas ce que feebar boobu mu saafaru nu ma gën a gaawee. ki di Babacar meng di xamle ne li phase bu njëkk la bu jëm ci askan wi te limu laaj mairie bu Hann bel dina ci xar tank tubayam ba nopp di ñax askanu an bel ñu gëna top ndigal autorité sanitaire yi. nga xam ne li lu ñuy def la dama da fay acte bu njëkk parce que fiñu jëm xamuñu ko donc dafa laaj ñu andax dal andax sago andax prudence li ñuy ñaan yalla moy xex bi suba mu jeex yalla naka yalla def mais bu fekkene dafa wara continuer. dafa am lo xamantene il faut que nak ñu continuer di teg ay djégo parce que tay li le mbir mi laaj motax ñu jënd lepp lu jëm ci li nga xamné ne détergent eau de javel sabou, gel hydroalcoolisé pour que ñu tas ci dëkk bi and ci nak ak ñi nga xamné ñoo ñooñu suñu relais sur le terrain. bu ñu jëlé ben quartier nga jël le conseil de quartier jox ko matériel ci biir quartier bi nga jox ko bàjjenu gox nga daal di dem ci biir relais communautaire yi ensuite def ko ci nga xamne moy mooy def ko ci église bi di ngeen gis ne que ñom ñep dañuy dajaloo ci biir quartier bi def liggéey bi liggéey bi gëna a gaaw te ku ci nekk nak di nga nekk ci sa rôle donc ñun lool nañ ci jëm donc amna mission bo xamante ci xex bi ñu jëm ñun commune ñun mairie loolu nañu mën pour jàppale le ministère de la santé parce que dañoo nekk ci affaire bo xamante mën naa ne autorité sanitaire yi ñoom ñoo koy euh, gérer directement ndaxte ku feebar doo ñëw mairie ñëpp xam nañ ko ku feebar hôpital nga jëm mais nous, nga aussi une structure de santé des hôpitaux, des postes poste de santé nous dañuy nekk ci seen wet également di accompagner pour faciliter le travail